dalee na jàmm ci xibaar yu gën a fës ci bis bi dañ koy dooree ak l'accident bu am démb diggante luga jëm Saint-Louis ab camion moo daal di mbëkkanteeg oto bu ndaw daal di andi nag ñaari nit ñàkk ci seen bakkan waaye itam sax ñeneen nit daal di ci jëlee ay gaañu gaañu yu métti métti mbir mi nag mi ngi am démb yokkuwaat itam ci l'accident yu nga xamante ni jamono bii nemmeeku nañ ko ci kaw tali bi saa su nekk ret nag manque d'insécurité bi nga xamante ni daal nemmeeku nañ ko ci tali bi waaye itam ñàkk am ay nit nga xamante ni nag ñoom ñooy saytu ak dëkk bi loolu nag nekk ay kàddu yu nga xamante ni daal ña nga xamante ni ñoom ñoo yëngu ci wàllu woowee ñoom ñoo ko daal di wax ñaar ñi nga xamante ni nag ñoo daal di ñàkk seen bakkan sax ñu yóbbu leen ci hôpital Ahmed Sakhir Mbaye bu Louga ñi ci am gaañu gaañu itam noonu nañ leen fa yóbbee ngir daal di seet seen yaram askan wa nag jamono bi leen rek la ñu bëgg rawatina ña nga xamante ne nag ñoom ñoo dëkk foofee ne ca diwaanu Maka Bragey na ñoom daal la bëgg rek moo di ñu dimbal leen ci ay doodaan waaye itam sax dimbal leen ci ay nit yu nga xamante ni ñoom saytu kaaraange woowee ne beneen mbir itam bu nga xamante ni xew na fan yii nii ba lépp eh, fanweeri nit ak juróom ñu daal di gis seen néew ci ab gaal gaal googee nag ba tey ji nag ëllëwoon xelu askan wi ña ngi ci jàppoon nag ñu jàppoon sax ñoo ñee ne ñoo gaal googee dëkk ci diwaanu Mbuur kenn ki diwee ki turu àndooy keneen ki see gay NG Ndiaye ñoom ñett ñëpp nag daa yóbbu nañ leen ca kanamu procureur de la république li ngeen toppee nag moo di association de malfaiteurs trafic de migrants et mise en danger de la vie d'autrui ñoom ñett ñëpp nag daanaka sax euh, daan nañ leen déféré prison bàyyi leen fa bàyyum ndegandiku ngir ibbi daal yeneen enquêtes yu nga xam te ne daal dina tax ñu a xam mbir mi naka la demee lu ci mënti am daal gaal ne bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni sax ñooñee ne jox nañ ni ñoom ñoo di enquêteur daal gaal googu amoon na lépp ñaari téeméer nit yu nga xamante ni daal seen bébét moo nekkoon daal di dem ca diwaanu Espagne waaye loolee sax mujjewul antu nag ndax gaal gi sax la ñu gis daal muy daal di doxantu ci digg géej diggante mook Dakar ñooñu sax itam daal ñuy avoué ni que sax bokk nañ ca ña nga xamante ni ñoo ñu tëggoon gaal googee ne ci fàttali nag ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre bi weesu lañu daal di gis gaal googee ne foofee ne ci diwaanu Yoff beneen jéey itam daal di am démb ci Cees kaay benn dëkk ñaari gaar rawatina yoonu pour nga xamante ni benn dawalkatu Jakarta buy wuyoo ki turu Habib Mbaye ñu gën koo xam ki turu Ipo moom nag la ñu daal di fekk sax ci kaw tali bi mu daal di génn àdduna ci anam bu doy waar ñu bëri nag jàpp ni sax kooku dañ ko daal di agressé ndax moom saa itam laata muy dem foofee ne di yóbbu ab client waajoon na pour yóbbu benn mbokkam bu nga xamante ni dafa génnoon àdduna ñu waroon koo tuba Touba ci déggante bi nag mu doon yóbbu ab client la lépp itam jël nañ ay temps bu xaw a diir ngir ñu mën a ràññee ay mbokkam lu ci mën ti am daal gendarmerie itam dugal na ci loxoom waaye itam sax sapeur pompier moom mujjoo yóbbu néewam uh, ci l'hôpital régional bu Thiès ba niñ ko jébbalee boromam démb ci altine ji nag mu nekk nag bu nga xamante nag askanam jamono bii nii ñu ngi koy làmboo lu ci mën ti am daal itam ca Thiès kaay rawatina ña nga xamante ni ñooy dawal jakartaay ñu a baax insécurité ni moom fa am saa su nekk rek seen ay ñooñ di ngeen jël di leen agressé nangu seen moto waaye dem sax ñeneen ñi ñu dem ba leen di faat wala saa itam moom Samba Kumba Samba mi nga xamante ni moom moo jiite Jakarta yi li mu bëgg rek moom moo di nguur gën ci bàyyi xel bu baax a baax te diwaanu Louga la ñuy dubali daal di wax itam ci mbiru eh, sàmmkat bi di wekk turu Mamadou Sow moom nag saa defeere nañ ko itam ca parquet bu Louga di ko toppee ret eh, faat bakkan moom saa itam neen daal ka nga xamante ni mi ngi wekk turu eh, Belel ka am juróom fukki kookee nag la Mamadou Sow daal di faat ci anam bu doy waar li leen booy nag moom moo di jur gu nga xamante ni daal dafa doon dugg eh, ci ab tool loolee ne moom moo andi woon la nga xamante ni moom moo daal di eh, jur seenu xeex ba eh, ab bakkan daal di ciy rot àllarba bi weesu nag la mbir mi daal di am ba waral saa itam mbir mi daal mujjee woo noonu waaye tam saa ñu ngi ñuy xamante que nag moom mi nga xamante ni moom moo di bëleel ka nga xamante ni daal daan nañ koy jam jaas yi waaye waaye itam daal di koy dóor moom li mu bëggoon det moom moo di ñu daal di koy évacuer ba ni mu génnee àdduna loolu saa itam moom moo war a daal gendarmerie daal di ci duggal loxoom ni ki nga xamante ni sax moom mooy woy juru xale bu góor boobee ne daal moom moo di daal di jël doomam jébbal ko yoon gannaaw ba nga xamante ni daal yëg ne ni ñu ngi ko doon wër moom xale bu góor bi nag xam ne daal moom moo di affaire bi daal dafa doon maanaam défensé wu ndax nag ki nga xamante ni moom moo di Belel Ka dafa bëggoon faat bakkanam lu ci mënti am daal moom nag jamono bii mu ngi ci loxo yoon di xaaret ana ban ndogal la àttekat yi di del ci moom foofee ne itam ca diwaan Tambacounda ay samba bo yu nga xamante ni daal ñoom eh, seen liggéey moo nekkoon daal di dugg ci kër yi di nangu alalu nit ñi waaye itam sax eh, di agressé ñoom nag itam tolloon sax lu toll ci eh, juróom-ñetti nit ñoom ñëpp ni nag moom moo nekkoon seenum njiit ñu koy woowee rasta moom saa itam ay weer a ngi nii ñu ngi ko doon wër saa itam gannaaw ba mu jàppee woon beneen gang bu nga xamante ni moom moo ko daal itam mi nga xamante ni daal moom di rasta bokkoon itam ci beneen mbir itam bu nga xamante ni ñoo ngi ko ko doon toppee mu di wàllum viol waaye nag bile yoon nag daal gannaaw sax ba nga xamante ni lëkkaloo woon na ak ay xaritam bëgg a dugg ci ay këru nit ngir daal di nangu seen alal noonu itam la gendarmerie daal di takkoo ba dëgër daal di koy tënk teeko ñoom nag itam sax seen groupe boobee daal liñ ci ci xaalis xaalis bëri na waaye tam fekke nañ ci ay téléphone ay arme waaye ay jaasi yu nga xamante ni daal loolee lépp ñoom ñoo ko daal di yoroon mu nekk nag mbir bu nga xamante ni nag ñoom dañ koo daal di sàccoon mu nekk nag itam soulagement bu nga xamante ni jamono bii askan wa yeewoo fu fee ne ca diwaanu am nañ ko ndax nag nee ñoom mënuñu woon nelaw ba yendoor ngir jafe-jafe yi nga xamante ni ñoo ñeenee ñu ngi leen ko doon teg beneen jafe-jafe itam bu nga xamante ni nemmeeku woon nañ ko ci diwaanu Mbuur ba mu andi ab jéey démb ci ji daal foofee ca quartier Daaru Salaam nga xamante ni mbirum kankuran daal lëmbee woon na dëkk bi démb ci altine gi ndax nag ba nga xamante ni kankuran bi génn na saa itam lañ ci daal di gaañ ñetti nit nga xamante ni ñoom ñëpp jaasi lañ leen daal di dóor waaye itam sax ay kër yu nga xamante ni dañ koo daal di attaqué saccagé ko loolu lépp nag mu ngi am démb ci altine ji foofee ne ca diwaanu Mbuur waral sax ña nga xamante ni dañ ci am ay gaañu gaañu ñoom ñëpp lañ daal di jël yóbbu ci l'hôpital itam askan wi nag jamono bi ñoom leen rek la ñuy laaj moo di ba xam yi ñoom xamante ni moom moo di ab dogal wala itam ab pouvoir bu nga xamante ni lu leen neex def wala sax ñoom jamono bii daal leen rek la ñuy sàkku ci ña nga xamante ni ñoom ñoo jiitee dëkk bi muy préfet ak itam ña nga xamante ni daal ñoom ñoo di kilifa dëkk bi daal ñu fexe ba lii di kankurang yi ñu gën a xool bu baax a baax ban anam lay amaatee sinon nag dina am benn riposte bu nga xamante ni bu amee diggante askan wa yeew foofu ak ñi ànd kankurang bi dina métti lool ka nga xamante ni itam moom moo fi nekkoon directrice de la promotion de l' économie sociale et solidaire ci nguur Macky Sall mu di Jigi Diop moom nag jamono bi nee nañu division des investigations criminelles mi ngi koy wër moom saa itam daal ñu ngi nii xam ne que nag jamono bi kenn gis ko fenn waral sax ña nga xam ni ñoom ñoo di waa police de l'air et des frontières nag jamono bii lenn ret la ñu daal moo di nga xamante gis nañ fa euh, soxna si di Djigy Diop Fall ci frontières ko daal di téye ndax moom nag ñu ngi ñuy xamal ne que nag am na ay mbir yu nga xamante ni ñu ngi ko koy toppee ñeel nag wàllum escroquerie ak lu ni mel lu ci mënti am daal jamono bii nag moom ña xamante ni ñoom ñoo di waa diggaar ñu xaar ngir janoo ak moom amal ak moom ay lanket yu nga xamante ni ñeel na wàllum détournement yu nga xamante ni dañ ko daal di tudd ñu daal di itam ci politique wax itam intercoalition bii di eh, tax takku wàllu Sénégal sàmm sa kàddu ak jàmm ak njëriñ ñoom ñett ñëpp nag dañoo lëkkaloo ngir fas yéene nag demandoo eh, ci élection législative yi ñu jëm ngir mën a am daal majorité eh, foofee ne ca pencum ndaw réew ma waaye nag loolee nga xamante ne nag moom moo di intercoalition bo dafa am lu ñuy soppeeku ki dernière minute ñu ngi ñi xam ne que nag ñoom nag seen intercoalition yooyee fenn rek lay am ci département yu Sénégal moom moo di foofee ne ca diwaanu Guédiawaye ca ca Ndakaaru Njaay mu nekk nag eh, benn face à face nga xamante ni daal mënta ñàkk itam ñu bëri itam ñëwaat ci ka nga xamante ni moom moo di Barthélémy Dias mi nga xamante ni moom lañ jiital eh, ci turu intercoalition boobee di takku wàllu Sénégal jàpp nag loole sa la bu nga xamante ni ku jigi ñoom dañ ko bëgg amal ngir daal di teg Barthélémy Dias eh, ci bopp ba bu ko defee nag bis bu ñu retiré li nga xamante ni nag moom moo di liste boobee nag dina nekk nag mbir mu nga xamante ni nag opposition bi dinañ ci mën a sukkandiku ngir yàq deru ñu nekk ci ngur gi nii loolu nag saa ay gëstukat ci wàllu politique ñoom ñoo ko daal di teg ca boobe jamono nag moom Ousmane Sonko moom nag moo nar a teewal parti Pastef ci tëdd liste yi fépp ki Sénégal nag waaye tam daal ñu bëri jàpp moom mi nga xamante ni moo Sonko eh, digganteem ak Barthélemy Dias nag xeexu ñaari doomu ndey yi ni ko tuddee mën ta ñàkk foofee ne ci Ndakaaru diggante Sonko nag ak Barthélemy Dias kan moom Ndakaaru résultat bi nag dinañ ko am ci ngoon ca boobe jamono ana fan nga mën a jaar ba am majorité opposition ak pouvoir kan moo war a am majorité nag loolu lépp nag jamono bi nekk nag ak gëstu bu nga xamante ni ñu bëri ñu ngi koy samp laaj ci boobee jamono nag ña nga xamante nag ñoom ñoo di waa nguur gi nag ñoom daanaka jamono bii seen xel dal na loolu ci daal di am majorité foofee ne ca pëncum ndaw réew ma lu ci mënti am nag foofee ne ca parti ànd ngor jot na nag foofee am na ay jafe-jafe yu nga xamante ni am na fa ndax nag moom maître Moussa Diop daal ñu ngi ñuy xamal ni que dafa daal di déposer ab plainte ci ki nga xamante ni nag moom moo di mandataire am di ko toppee wàllum avis de confiance moom Maître Moussa Diouf nag jamono bii daal mer na lool ka nga xamante ni moom moo di mandataire am ndax nag am na yu nga xamante ni koo koy def koo jëpp te ko woon benn yoon lu ci mënti am daal plainte bi moom daanaka jébbal nañ ko euh, procureur de la république di xaar ana fan la wànnent euh, di mujj ak gëtëm ñu daal di wax itam ci jiyee bu nga xamante ni am na euh, foofee ne ca diwaanu Ndakaaru Njaay rawatina foofee ne ca commune bu yëmbal sud ñeel nag benn xale bu góor bu nga xamante ni mu ngi wekki turu Ahmadou Bamba Ndiaye moom nag courant daf ko daal di masse ba mu jaaree fa daal di génn àdduna moom nag ñu ngi ñi xam ne daal dafa doon joué li nga xamante ni moom moo di euh, petit camp waaye nag moomee rëccul yu benn yoon ci la nga xamante ni moom moo di masse courant boobee nga xamante ni daal ab poteau électrique ci la daal di jàppandu ndax nag fi ci fi ñu ko yóbbee hôpital diggante ñaari hôpital yu nga xamante ni daal xawuta soyante noonu ci yoon bi la daal di ñàkkee bakkanam waaye tam sax ña nga xamante ni ñoom ñoo di waa kër docteur biñ jotee maanaam la nga xamante ni moom moo di malade boobee ne ba ba fekk nag boobee ñàkk na bakkanam leen rek lañ daal di laaj moo di ñu amal la nga xamante ni moom moo di autopsie xool dëgg-dëgg ana lan moo ko daal di faat lu ci mënti am itam askan wu nga xamante ni ñoom ñooy yee foofu daal mere nañ loolu ka nga xamante ni moom moo di jaraafu dëkk ba eh, ci aménagement bu nga xamante ni daal dëkk bi amul benn yoon ndax itam ay poto courant yu nga xamante ni saa su nekk dafay lor askan wu nga xamante ni ñoom ñooy yeewoo foofu mbir mi nag jamono bii sax ñoom askan wi bu ñu moytuwul sax daañu amal ab marche ngir ñaxtu doxalit bi nga xamante ni seen jaraaf bi mu ngi koy doxalee ci seen dëkk boobee ne mbokk yi mu ngi nanu li moo nekkoon lenn ci la nga xamante ni moo gën a fës tey ci xibaar yi bég nañ loolu ni ngeen di àndeek ñun ci seen de presse bi waaye nag mbokk yi nag duñ ko daanalee foofu dañ koy àndeek yéen sax su nekk rek nga xamante ni rek moom moo gën a fës ci bis bi dañ koy àndeek yéen rek ci la nga xamante ni daal te mbir bu doy waar nga xamante ni ngi xew diggante Guinée Sénégal jëm Gambie benn waay boo xamante ni moom daanaka ab fonctionnaire de l'état la foofee ca diwaanu Guinée waaye dafa ay relation ci Sénégal jëm Gambie ndax moom dafa am benn xale bu jigéen bu nga xamante ni mu ngi doon bëgganteeg ak moom xale bu jigéen bi daanaka Sénégal njaay fi am ci itam xaritu xale bu jigéenam boobee nga xamante ni kooku itam mi ngi ca diwaanu Gambie waa ji nee nañ moom ab séminaire la ñëwoon fii Sénégal Ndiaye ba fexe daal ba xamante xale bu jigéen boobu nga xamante ni mi ngi dëkk ci benn dëkk bu jege Gàmbi lool wala ñu xamante woon ci benn séminaire waa ji daal di dellu dem dem ñibbi mais waa ji ndog-ndog da koo dal ndax moom sax ni ñuy wax ngir ñàkk na bakkanam mais anam bu nga xamante ni daf koo ñàkkee bakkanam itam daal euh, doy na waar lool ndax xam nga yenn saay am na ñu nga xamante ni bu ñuy liggéey. dañuy jéem a am ay conseil wala jéem am ay mission ngir génn dëkk dëkk dem dem daal euh, mën a air moom waa ji soxnaam comprendre na ko ndax xam na ni boroom këram boroom nombo tànk la miin na loolu dem ak a ñëw waaye mësta am dut ci jëkkëram am na yu nga xam te ne daf koy def neexu ko wala mësta am dut daal ca la nga xamante ni ndax moom jëkkëram li mu ko xamee woon rek moom moo di dem liggéeyi ñëwaat ndeke waa gi toj na Sénégal waa gi yenn saa sax mu daan tàggu mission ndeke Sénégal njaay bi lay ñëw ànd ak corom boobu daal di dem Gàmbi féexal seen xool day nag yenn saay nit ki moom booy def dara ba nga ba nga mujjee feeñ moom li yàlla xam doy na ci weekend bii daal la jóge Guinée ne soxnaam day dem voyage d'affaires ndeke voyage d'affaires boobu ndeysaan fa lay ñàkkee bakkanam ndax voyage d'affaires bi leen rek moo ko taxoon jóg moom moo di jaar Sénégal récupérer ka nga xamante ni moom la bëgganteel ngir dem Gambie am fa weekend waaw am naa moom tamit daa am keneen koo gunge woon nga yenn saa yi nit ñi moom am ñu ñuy bëgganteel bu ñu amee kenn rek dañuy xool seen meilleur ami may ko xaritu ka ñu nekkal bu ko defee nag affaire yi gën a gën a baax gën a dëgër. moom nag loolu moo nekkoon mbébétam mu daal di fexe daal ba bani ni soxnaam soosu maanaam corom soosu mu nekkal Sénégal ne daal dinaa jël jël si sa dëkk ñi dem Gàmbi féexal suñu xol malheureusement nag moom waa ji ci yoon boobu mu doon demee ca diwaanu Gàmbi wala daal di ñàkk bakkanam ndax moom vitesse buñ doon daw foor na lool ndax xaaju guddi daanaka lañ doon daw jékki-jékki rek saaraan dugg ci àll mbëkk garab moom waa ji moom sur le coup la daal di jaare foofu génn àdduna ndeysaan ñaari jigéen ñi mu àndaloon ñoom itam jëlee ci ay gaañu gaañu mais problème bi moo di mënuñu woon xam ay mbokkam ndax xale bu jigéen mi daanaka moom waa ji nii rek la ko xamee ni wax naa ne sànq ci ab séminaire la ko xamee laa falii que nag ñu am 24 heures pour taal téléphone waa ji xool xool xool xool ba soxnaam war a ci téléphone bi finalement daal ñu expliqué soxna si ne ko sa borom kër kat dafa am ñaar ñu mu àndaloon euh, finalement daal dafa def choc génn na àdduna moom nag soxnaam dañoo jàppoon ni que sax moom waa ji ñaar ñi mu àndaloon ñoo kenn ki soxnaam la soxna si ne man mais man sama borom kër moom li ma tàggoon moom moo di voyage d'affaires mais musuma tàggu ni que euh, maanaam dafay ànd ak jigéen ak yooyu soxna sax xawoon naa xawoon naa mer loolu mer noonu. waaye daal finalement gis ngeen ni mbir mi demee noonu daal la kaaw yi demee nag mu nekk nag mbir mu nga xamante ni eh, doy na waar lool léegi nag laaj may laaj moo di ndax du risque nga génn sa kër tukki surtout dëkk ak dëkk tàggu sa soxna ne ko da ngay dem voyage d'affaires coro loolu tamit daal eh, jar nañ cee taxaw seetlu ndax mës na dal itam wala mës nga maanaam tàggoo liggéey dem feneen pour leneen rek leneen xam nga itam nag yenn saa itam il faut ñu joxe ci ay conseil entre nit ndax itam dañuy naan nit koo xamante ni daal xamoo luy xew suba il faut que mu daal di jaar yoon il faut nga teg ko ci axe bu ko defee daal ëllëg ci biir dara bañ a dal lu nga xamante ni mën nga ci am gàcc waaye daal jàpp leen daal moom mi nga xamante ni mooy waa ji daal te diwaanu Guinée la jóge woon jaaree foofu dem euh, ci jaar Sénégal dem Guinée dem Gambie ba ni mu fa jaayee daal ñàkk ba ci accident mbir mi nag noonu la demee kon nag mu ngoog. Euh, mbokk yi nag fi ñu koy tëjee moom moo di li xew démb ci diwaanu Thiès kaay xam naa nag dinañ ciy def ay éléments yu bëree bëri mais dañuy ñëw ak yeneen ëmp ci résumé ci borom Jakarta ba nga xamante ni moom démb la daal di ñàkk bakkanam dañ ko daal di agressé ci yoonu Pout bi Pout nag mooy booy génn Thiès. mel ku jëm yoon Ndakaaru yoonu àllunkaaj bi fa lañ ko daal di faatee anam bu dee waar ka nga xamante ni nag moom moo di eh, président des conducteurs de moto Jakarta à Thiès eh, di Samba Kumba Samb moom itam amoon na ci ab waxtaan ci ñun expliquer ñu un daal situation bi nga xamante ni daal moom naka la ko comprendre. yar ak ay teggin ku ne xam ne ci hippo bi mu joxoon doomu aadama ku ne xam ne hippo ci yaatu gi mu nekke woon ku ne xam ne hippo maanaam ci melokaanam. yar gi nga xam ne kii moom la lay woon ci si ci comp ci ci ci liggéeyukaayam tey ji tiisu rëy dal dal ci kawam muy loo xam ne lii agression boo xam ne bii xam naa ni moom sax bett na ko ndax ah, ku xam Ippo xam ni maanaam du dox ci caaxaan bañ na ko ba am na yenn heure yoo xam sax du ko daw waaw tey nag eh, xëy na lii yàlla dogal mooy fi mu ko dalee moo métti parce que ku programme ni da ngay bokk ci ñiy dem ci rop bi nga xam ne bii moom moo am sa koñ suñu jigéen bu baax muy wàllu yàlla di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana parce que yóbbu nañ ko tey suba Touba mu bokkoon ci ñi nga xam ne ci délégation bi nga xam dafa waroon bokk ci ña ko war a yóbbu ñi dem Touba yàlla dogal mu am benn client bu ko jël ni ko kaa yóbbu ma ay sept heures du matin sept heures du matin six heures et demi sept heures du matin mu am kóolute rek di ko yóbbu dogal boobu amee ci moom xamuloon client bi bi defe naan def li mu ko def mm. waaw parce que li ko def def doon na xam def ju ñaaw ci ban melokaan lañ ko reyee mais daal sérieusement parler li doon na loo xam ne lu métti la. Euh, mbir mi Pout bi presque ci dép ci région de région de Thiès la bokk mais département euh, maanaam dafa bokk ci commune Pout. xam nga mu doon loo xam ne li daal vraiment euh, ñu ngi lancer un appel ci ñi nga xam ñoom ñooy autorité Thiès yi mm-hmm. ci sécurisation bi nga xam moom lañ war a sécuriser population bi. ci anam yi nga xam ne parce que yenn circulation yenn yenn yenn yenn yenn endroit yi maanaam bu amul it bu war nay am ay poste de garde yoo xam ne nii maanaam war nañ koy mën a bàyyi ci yenn yenn coin yi parce que ku ne xam na ni diggante di Pout a Thiès maanaam am na benn am na benn am na benn euh, euh, yoon woo xam ne nii maanaam boo koy xool di nga dem yow mi nga xam ne sax yaay dawal sa oto sax léegi da ngay dawal moom yàgg sax da ngay tiis sa bopp parce que da ngay jàpp ni man ngaa génn nit génn ci kaw euh, ci ci àll bi maanaam kar la agressé la. man ngaa yor sa moto it nit génne ci àll bi kar la agressé la suñu sañoon waaw man daal damaa xëy ci suba rek ñu wax ma ni ma am na kenn ku ñu agressé ci borom jakarta yi ma koy laajte ban ni ma jàmm gën la dëkk juste ma dem ci arrêt bi nga xam moom mooy arrêt euh, bi nekk foofu ci Sonadis bi fekk fa président arrêt bi mu Mbaye Babacar mu expliqué ma ni ma ah am na daal ku ñuy dégg ni moom lañ rey fii bi bi ñu demee saytu ko ñu ni moom am na ci laa déggee loolu nag bi ma ko déggee wax dëgg yàlla mu doon loo xam lu métti la booba sax xawma kan la par la suite nag lan ma wax ni Ippo ci boobu moom lañ moom lañ agressé mu doon ko xam ne ki daal sérieusement ñun moom wax dëgg yàlla bett na lool lool lool lool lool lool ñu ngi ñaan wax dëgg yàlla euh, yoon maanaam def li nga xam moom mooy liggéeyam ba nu xam ñu jëf ko te ñaawte fii ñan lanu parce que nii nii def nii wax dëgg yàlla métti na trop ci population Thiessois yi. ah boo koy xool euh, boo ko doon natt tey jii mën naa ne bu amul trente cinq ans jege na ko xam nga mu doon koo xam ne kii dafa nekk ci digg ndawam euh, wax dëgg yàlla doon daan dooleem xeebul nag li mu doon def. ndax wax dëgg yàlla mi ngi si daan ay soxlaam mi ngi si daan ay problème am kon lu mel ne su amee yoon la it wax dëgg yàlla euh, ñuy sàkkuwaat bu baax a baax rek kii di yoon euh, ñi nga xam ñoo nekk ci wàllu yoon ñi nga xam ne seen liggéey rafet na muy police la police nationale wax dëgg yàlla gis nañ leen ñuy liggéey liggéey boo xam ne bii liggéey bu am solo la te lépp loo xam ne lu ñu war a saytu la rek ñoom mun ko saytoo dinañ dem ba jàpp ñi def lii ay ci mbokk yi kon gis ngeen ne loolee moo xew démb ci diwaan Cees xam naa ni euh, suba incha allah dinañ leen dégtal ay kàddu ña nga xamante ni daal ñoom ñooy jege ñaale ki ki ñu faat ndax nag mbir mi nag euh, saa yu xewee rek dañ cee bëgg a dox wax ci ba kilifa yi daal euh, daal di ci bàyyi xel bu baax a baax ngir del ci amatukaay jërë ngeen jëf mbokk yi lii moo ko doon fës te ci xibaar yi am mbégte kontaan dinañ jox di rek suba ak jàmm jërë ngeen jëf ci ànd bi.